grand champion man tukulóor ziar naa la bu baax. ziar naa bëgg a dégg analyse. Mhm. dama bëgg a dégg analyse bu profond ci diggante Modou Lo Ama Baldé. ma bëgg koo dégg mooy fi làmb toll yaakaar naa ne le 16 bii ñu jëm ci la Modou Lo war a jàkkaarloog Ama Baldé balaa ñoo ñëw ci tabaati dama seen. muy combat yoo xam ne ni Sénégal gépp ñu koy xaar. dëgg Ousmane Toucouleur nga daanee mbër mu ne lamb hmm mën nañu ñox ne sa bëri ak bëri Modou Lo sax méngoo na deug la ndax lepp ci ndoxtu tu bëri la làqu su ngeen bëri mbër mu tey boppam du len arrangé bu ngeen di bëri mbër mu bëri ak nu mëna mëna a mën bëri mhm. am ngeen pexe ko daan ci bi bëri deug la Modou Lo nekk na roi des arènes wala jakarlo ak ma Baldé tay Ousmane Toucouleur mi analyser la jakarlo Ousmane combat bobu fi mu toll ñu wara a bëri le 5 novembre war a jàkkaarloo le 16 ca Gambia tey jii loolu Ousmane noo koy waajee nan nan nan nan nan nga ci wax amateur yi lay seetaan ak Sénégal yi lay seetaan. ba dem damay ñaan yàlla rek yàlla combat boobu am rek. dana am. loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla na combat boobu am. Mhm. te combat boobu aduna bi yëpp moom la ñu xaar. lu tax lu tax rek man la salaamaaleykum nga ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla na combat boobu am Ousmane Toukalou nan la nan la. dañuy ñaan yàlla rek yàlla na combat boobu am. yàlla na ko yàlla def. amiin bu fekkee moo gën Sénégalais yi. waay parce que combat boobu moom la adduna bi yëpp di xaar. ci lan. Euh, dafa nekk combat boo xam ne lii Modou Lo yore moom la Ama Baldé soxla. Mhm. te Modou Lo dafa ne du ko daan. Mhm. te Ama dafa ne dinaa la daan par force jël li nga yore par force. laa ilaaha illallaah. Euh, boo xoolee. Euh, dafa Ama Baldé daa am lu mu wax. mu ne wax. demee ba màgget bi di doxee bekki sax damay nangu bekk bi bëri ak yow. Hmm. xam nga. Hmm. am na benn côté boo xam ne Modou Lo dafa waxoon bu Ama Baldé yoroo mu bëri moom hmm. mu doon loo xam ne yaakaar naa ne Pikine sax moo jur parcelle. mu jur parcelle. parce que ñaar yu bëre yi bokkuñu. déedéet. kii kii fausse garde la kii garde normal la. Mhm. ñëwul nag léegi nag dugg nañ ci biir bëre bi. xam nga Modou Lo côté gauche am bi mooy danger. ndax sànq laa ñàkk Serigne Ndiour nee ko ci position bi Ama Baldé war a taxawee ak Modou Lo ak Modou position bi mu war a taxawee ak Ama Baldé. mais man mu euh, Fadam. Mm-hmm. man damaa pardon su fekkee may Ama Baldé man. Mm-hmm. du ma dem côté droite Modou si côté gauche bi laay jëm. lu tax te foofu bi nekk. kay fa bi ah. nekk. fa laa koy wooye foofu yaakaar ne fa ma bàyyi foofu. ah da ngay wor. dama koy wor. waaw pour boobu mën a am pour wor boobu mën a am da ngay ciblé ba. te wor boobu tamit mun na mun mun naa ko dëggal. lu tax ci wor boobu ma war ko wor mun naa changé wor boobu dëggal fi ma ma jëm. ndax Ousmane Toucouleur loolu nga bëgg a wax ko. parce que mun naa ko perturber foofu ba ma curux fee mu yaakaar ne fa ma delluwaat foofu mu fekk fekk perte na équilibre ma dem foofu. kon tey jii su ma la déggee. côté Modou Lo base bi nga xam nii. fu la droite bi di amee équilibre pour mën a ñëw. Mhm. ñaar fa la bëri bi ak xëy ndax ndax Modou côté gauche am ci dafa am noo xam ne bu ko mbër songee. Mhm. benn loxo gauche bii da koy da la koy mën a woggee ba nga ñëw. waaw parce que loolu. waaw loolu. xam nga magam magam max moom dafa noo doon li gréco-romaine parce que loolu boo li gréco-romaine boo ñëw mënu la ex ëmma seen day bëree noonu. ndax mhm. ama ama day màbb ñëw. ñëw ci Ama ndax dama gis ne dama gis ne dama gis ne Modou boo ko songee ci côté gauche bi ñaaraan ci. Mm-hmm. mën na laa kor-kor freinage. Mm-hmm. ci avant bi. ñett mën ngaa ñëw mu woggi la ba nga ñëw. taf la ci mm-hmm. wetam dàq la mbootu colal. ñett mën ngaa ñëw mu tëru bu la tëroo ba nga sedd mu kor la dóor la ay épercule loolu tamit yëpp mu ngi ci côté gauche Modou mais da nga ne Ama Baldé mën naa simli côté gauche Modou Lo ba Modou yaakaar ne dañu doon préparé ñor na Ama Baldé war ci deux temps. dem ci côté droite ba. pourtant Ama mun na dem si côté gauche bi daan fa Modou Lo. Hmm? maa la wax ne mun naa dem si côté gauche Modou Lo fa Modou Lo. maa la wax li fa dem. naa ko. lamb lu mu jox am nangu naa ko. xam nga. lu tax tamit Ama Baldé ñi ko yox dafuñu. lu tax duñu ay. nga ne ah, lu tax lu tax mais dama gis ne Ousmane Toucouleur ñi daan Modou Lo yëpp yëpp ci côté droite bi lañ ciblé engagé wu jël fa coup pour mën a pour mën ko pénétrer. xam nga mootlo Lo côté góosam bi yaay booy maa ngi lay waat léegi xam nga Modou Lo gossam bi. Mhm. moo gën a danger ko côté droite bi te Modou boo xooy songo da lay tëru parce que am na benn am na am na loo xam ne man am na euh, benn façon bëre boo xam ne man dama ko daan bëre. code finance. mooy da ngay daw di ma sango ma daw fii la baaba delloo la. waaw kon fii la sens mais loolu gisuma ko ko bari ci làmba ji benn mbari laa gisoon ma ko doon bëri ci mba làmba ji mais du ko eggale ñamewul woon kii muy Pape Sène mel na. waaw da nga fiile ba mu egg sa kaw. mu daw fiile la. mais du eggali. Mhm, mhm. xam nga te Modou Lo xam nga nu muy bëreeg Ama. Mhm. ni mu bëreeg loolu ak Gris. lay bëgg di bërek Ama danaan Ama du ko bàyyi mu njëkk a ñëw. mais ndax loolu du ci Modou. ah. ndax loolu du ci moom. non c'est que nag moo ko xaar. moo ma laaj la ndax loolu du danger ci moom. ndax da ngeen dégg mbër mi màbb di ñëw. te bu ñëwee xam xàmmewul janjak jor te bu ñu ko jël sa coup ndax mbër moomu war nga ko mën a bàyyi muy ñëw ci sa surface. gis euh, en tout li ma la wax daal mooy. combat bi. Mhm. ama mun na ñëw beneen façon bu dul bu dul façon boobu sax. dina. kon da ngay tiit ama ba dañoo xëccoo xeex ba. non du xëccoo xeex bi gis nga làmb ji wax ñaari temps ci làmb ji. ñëwal Ousmane. Modou Lo. ar bi mun na ar mun na siffler mu ne xaar ma njëkkante ak ama du ma ko bàyyi mu ñëw maay ñëw. mu naan day jéem a turu Ama Baldé tan ar bi mun a sifflé mu gëdd Modou Modou Modou reculé mu taxaw di déglu Modou xam nga Modou mooy mbër boo xam ne doo ko may fu muy calculer di benn bennal chaque jour stratégie bi mu indaale ci làmb mm-hmm. pour mbër daan ko da koy mën a yàq ci mentalam voilà man Modou Lo man su fekkoon may Ama Modou fu mu dema song moo fekk fa bu dee benn bennal damay ñëw ànd ak moom mel ni luy bagaar ak moom benn bennalam boobu dinaa ko si fekk si benn bennal ba xam ne benn bennal boobu la laay dem ak moom. boobaa pour nga fekk ci benn benn boobu fooy nooy taxawee. non kay. Modou Lo du ma bëreeg moom làng du ma bëreeg moom géew. Ah, yaa ngi doog a ñëw ci làmb ji nag. du ma bëreeg moom géew. yaa ngi doog a ñëw ci làmb ji nag li tax bi nga nee du ma bëreeg moom géew rek laa xam ne yaa ngi ci làmb ji kon da ngay bëreeg Modou Lo làng bi. làng bi daal bëreeg Modou Lo ci côté droite ba nga koy yóbbu ba mu seere yow Fadam Modou dam koy yóbbu si langue kii laa ko yóbbu si langue bi laa ko yóbbu fàtte côté droite bi. waaw waaw moom ñu côté droite bi mun naa dem si côté gauche fekk la tant que muy ñëwaat si côté gauche ma delluwaat si côté droite bi. Mhm, mhm. yaa ngi ci ji yaa ngi ci lamb ji bu baax a baax a baax. Balde gars yi ba léegi xamaguñu Ama Balde lu mu mënee. amul benn mbër bu la ne Ama Balde lii la mënee. xam nga lu loolu. parce que. mab bu muy mab da ñëw di xeex yow du la may foo yàqee sa nag. loolu waral. gars yi mu mënee. mais Ousmane Toucouleur Modou Lo Modou Lo Modou bu ñu jàppantee ngemba yi. oh. dugg nga bu sensible dugg nga bu sensible ñoom te di dina dinañu bëre ba arbitre léeg-léeg amateur yi sax ñoo naan nañu att man maa la wax gis naa moo Lo fu mu bëree. mais ama gars yu bëri gis ñu ama fu mu bëree mbapat. Hmm. gis nga Modou xam nga mën na tànk. gars yu bëri dañuy tànk ama dàq bëre tànk kuy bëre tànk loolu la gars yi amaa nag. ama dàq tànk kuy bëre tànk. Modou mën naa bëri tànk. waaye ama dàq bëri bëri tànk. moom laa la wax nee naa la Modou mën na bëri tànk trop trop trop. mais ama tamit ku mën bëri tànk la. ama ku mën bëri tànk la parce que xam lu waral lool xam nga Modou Lo dañ koy dañ egg si tànk. mais ama moo gën a assuré bëre. ndax Modou Lo su ma la déggee li nga bëgg a wax lu ma jàppale la ci wax ji. Mhm. Modou Lo dawul bëri tànk daw ko. déedéet. saa yoo ca àggee dala koy jox buur la la yàq liggéey ngay bëre. Mhm. indi lu bees waaye Ama Baldé saa yu ne coppe tànkam da koy indi lu ko yàq bu mu sedd mu uti leneen. Mhm. loolu nga bëgg a wax. waaye nag bu ko bu ko bu ko indee si bu ko hmm? yi longoo ko mu dem yoonam maa la wax nga ne. ma ne moo loo bu bàyyee ba Ama Baldé egg si tànk bi dinañ ko ñibbi maa la wax leen. Ousmane Toucouleur li nga wax de. maa xam nga boo xoolee Ama bëram yi ñu mu daw jël seen tànk yëpp xoolal nu leen def. ñor ba nga jeex tàkk. xoolal mu seere la. Modou Lo munul munul nëpp ko. déedéet ndax Ama gën a large. Ama gën a te ñoom ñaar. mais dama gis ne mais nag mais nag Ousmane Modou Modou naa bëri super lourd yi mel Ama Baldé. xam naa loolu mais eggu leen fenn fenn fi. mais ñoom it ak ñu fenn. boo xoolee ñi mu bëreel ñëpp muy poids lourd muy Gris di Lac de Guiers di Eumeu Sène dafa daw téye Eumeu Sène ngembali noonu weñ delluwaat ko tegal ko seize boo xoolee giri quatre appuis la non ñëwal ci Eumeu Sène boo xoolee Eumeu Sène xam bi muy àgg ak bëri daa fexe ba loxo loxo loxo loxo bi nga xam ne nii moom la jàppee ngemb. dafa romb kanamu ngemb gi ñëw jàpp ci dëju ngemb ga. ci dëju ngemb la jàpp. waaw li mu jàppee ci dëju ngemb gi. Mm-hmm. léegi nan la def foofu nan la def foofu boo ba ba siis bi mën a. siis bi boo seetloo Modou Lo siis na Eumeu Sène te teewul mu ngi nekk équilibre. waaw parce que xam lu waral loolu. Mm-hmm. dafa vidé Eumeu Sène ba Eumeu Sène jeexal tàq. Mm-hmm. dafa bàyyi ak Eumeu Sène bëre bi. muy indi lan contre mu indi contre keneen ah. li fa te xoola boo xoolee Modou xeex bi la indi woon su premier combat ma moo euh, Eumeu Sène xeex bi la gënoon a favoriser bi bëre bi la bàyyi ak Eumeu bu yóbbee Ama Balde àll boobu mënut ci bëri Ama Balde. Ama Balde du xaar sax loolu. maa la wax lii Fadam combat boobu combat boobu du am doo ay lésures rek yu demee noonu combat boobu. <laughs> ndax avantage yu Modou avantage yu Modou Lo mooy ñu àtte ko Ama Balde ñaari. la làmba ji am combat boobu bu amee combat boobu du ma cinq minutes parce que les jours du fa am. la ilaha illallah muhammad rasulillah ah. parce que xam nga war combat bi mooy dàq ci combat yëpp bu amee. mais Ousmane Toucouleur li nga wax nii yéeme na maa la wax li combat boobu du ay ay cinq minutes yu gars yi yaakaar na ay dina dem ba dix minutes yu demee noonu ah non non non dafa egg parce que Modou day bañ. day bañ bu waroon génn. bañkat la génn saako yi. bañkat la bañkat la. waroon génn saako yi danaan du ma saako yi booy bi tax may génn saako yi booy bi du ma ko mm-hmm. lay wax mais ci loolu wax dëgg ah. bu mel ni Modou Lo bëri bés bu nekk ci làmb war a jàkkaarloog Ama Balde tey jii Modou Lo dafa war a bëri combat ba combat stratégie la a doon ndax Ama Balde mii ma gis Touba mi lekk dama daa mel ni ah, ñaari sàkk ngoo ñoo boole ah nekk nekk nekk yëkk bu mag. tey ndax Modou ndax Modou mu warna war naa warut a bëri combat combat annulé. il est confiant Ama. mais Modou tamit il est confiant. Ousmane Touré ñoom ñaar ils sont confiants. param kamba bi li si laxasu dafa bari. xamna ni da nga ko defé wax sax lu ci bari na ngo ci développer da ngay da ngay def rek. xam nga xam nga. loolu tax Fadam. waaw dégg la. bari xamna mais daru may wax. non da wax da wax lambak lolo and voilà mais damay ñaan ñoom ñaan ñëpp dama leen ñaanal yàlla may la wér gi ramu gudd fan mucc bu rafet xewal bu baax. mais combat combat boobu lu ci gën a xaar Ousmane Toucouleur lan ngay gën a xaar di ba. lan lan la nga xam ne nii yaa ngi koy yàkkam di dégg ko ci loolu. combat boobu at yi xeex lay doon. ñaari la a illallah muhammad rasulillah arbitre buy sifflé ñoom ñaan ñëpp dara Modou dana naan kii ma dawal xaar ba xaatu bu ñëw Modou day armé te Modou li ma la wax bu amaa ñëwul danaan day jéem a cokkaas Ama xeexa moom danaan day cokkaas Ama comme li ma la wax. la ilaha illallah. xaar ma cokkaas Ama pour Ama ma ba si ñëw. Hmm? noonu la te te làmba jooj ñaari deux minutes xeex lay doon. dina ci essence dina ci essence ante ku léegi li ci des li ci des ñu daw jàppante dencal ma la des bañ dem bañ ba ma an ba ma gis leen bànjul ñoom ñaar nga toog ci écran bi xoolal ma état forme Modou Lo xoolal ma état forme Ama Baldé nga lii leen loolu bu ñëwee àggali des waaye